mais situation bi changé wul waaw te ba mu amé tamit ñepp xam nañ ni nit borom kër bu tok amo lo yobul sa njabot lu muy def ci sa biir kër ndax ay sey tass nañu. suñu jabaré tass nañu rek. waaw ay sey tass nañu xalé yi mënatuñu dem école ndax amatuñ luñu leen inscrire ba am sax suñu benn collègue bo xamni ni ah suñu borom mom nako ndax lan ndax ñàkk xaalis bu mu fajo waaw. direction sax taxawu. ndax képp kuy kilifa ci dëkk bi ba ci présidence de la république yónnee nañ la kayit ba ci présidence bi deuxième fois ngi ni ñuy yónnee présidence kayit waaw mi ngi fii. de réception mi ngi fii. du gouverneur Thiès du préfet Thiès du kenn ñoom ñëpp yëgal nañ leen ko. waaw li ñu ah, plan d'action ndax ba tambali dañu amoon ben plan d'action bo xamni mom moom la amna luñu am na moy def nañ fi campagne de dénonciation légui nak dañuy demaat suñu deuxième plan moy d'ici 15 jours fi ak fukki fan ak juróom suñ joxul suñu xaliss liñ ñi amel dakaru lañ jëm ci direction générale ba tok fa def fa grève de la faim. audit bi mom il faut ñu def ko ala kulli hal lolu mom dañ ko dañ ko exiger exigence la parce que mënu ñu nangu kër goo xam ni si muy benn ci Sénégal benn usine moo fi am buy defar pile ci Sénégal waxuma sax rek sous région bi Sénégal moom rek moo fi defar pile moom moom am monopole boobu mënuñu nangu ñu toog di liggéey di liggéey presque fanweeri at ñu jékki-jékki benn bés rek ñu ne ñu kër gi tëj na parce que xaalis amatu fi suñu vocabulaire jalek, amul mévente mévente bokk fa perte bokk fa lépp lu ñu mës a liggéey jaay nañ ko musuñu tuuri pile ba ba ñuy taxaw jour bi ñuy taxaw oto yi dañoo taxaw ci bunt usine bi dugg ba suñu biir kii de production salle de production yi di jël piili di yóbbu commerçant yi bu njëkk ba dañ doon jël piili dem jaayi toog ay weer soog a fay waaye fan yi yooyu avant ñuy arrêté commerçant yi dañ doon jëw indi seen xaalis joxe ko di xaar ñu defal leen piir ñu yóbbu ko kon ngeen xam ne usine baa ngi doon dox Salif Seydi moo doon jiite Sigelec moom mi moo respecté wul accord yi parce que accord yi dañoo toog travailleurs délégués ak inspection du travail mu Thiès ñu signé ko def accord tripartite pour mu fay ñu suñu salaire ñu yaakaar di ñu ko fay mais lam lañu lam lañu ti ci ay chômage technique en n'en pas plus finir chaque 3 mois mu indil ñu note de service ne renvoyé waat ñu suñu syndicat ñu ngi fi saisir nañ leen peut-être que ñom def nañu lo xam dem nañu ba ben moment peut-être affaire bi ëpp na leen doole xamatuñ leen gisatuñ leen déggatuñ leen situation yi nek metti na lool ndax dama accidenté woon 2006 ba légui boobu ba léegi si usine bi fii dem naa ba ñu dagg sama tànk ci yi ma nekk nii métti na trop te am na ñu xam ni ñu ngi si ginnaaw seen famille métti na trop. trop maa ngi ñaan ndimbal kenn ku nekk muy chef de l'État muy madame kii ñëpp ñu dimbale ndax situation yi métti na 26 mois sans salaire dafa metti lii ñu daggee sama tànk du si yële jëkkatuwul seen dërëm def si ay jàmbur ak samay doole ñoo ko si def ak nii personnel bi kenn ku nekk jàpp sa dara jàppale ma ñu jéem